wasalaatu wasalaamu ala asrafi alambiyaai walmursalin sayidina wa maulana muhammadin alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain laqin lisaani waxlulan minhu laqad wajcalhu zakiran wa shakiran aba wajcal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen mbakkeel di leen bal aq te di leen baal di ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala mu bool ñu jéggal ni ñu ko baaxoo ànd ak yéen ci suñu jataayu xam-xam yi ñuy fàttalanteenoo ak yéen ci lenn ci mbindum sëriñ bi radiyallahu anhu ci jataay yooyu la ñuy ñëwaat rek incha allah euh, di ci àndaat ak yéen mu mel ni ñu ngi woon ak yéen ci téeral sëriñ bi radiyallahu anhu bi nga xam ne moom la tudde jazbatu sigaari an laibin bi xidmatil muxtaari mu mel ni ci suñu bind bi ñu mujj ànd ak yéen ñi ngi taxawoon ak yéen ci bunt bi nga xam ne ci lañu sëriñ bi radiyallahu anhu di xamane ñu xamale naka lañu ñu war a gën dogal euh, waaye naka lañu ko war a muñe itam su fekkee ne dogal am na euh, muy al imaanu bil qadar kon tey bunt bi ñuy ànd ak yéen day mel ni mooy bunt bi nga xam ne moo mujj ci téere bi te mooy bunt bi nga xam ne moom la sëriñ bi radiyallahu anhu jagle defal ñu ko ci ana lan lañ war a gëm ci lislaam waaye tamit bu ñu waxee al ihsaan mooy lan islaam mooy lan ak bu ñu waxee al ihsaan yi tam lan moo tax mu ne at taarifu bi kayfiyatil imaani buntu bii de li ñu ciy xamle mooy naka lañu wara a jàppe lislaam waaye bu ñu waxee lislaam mooy lan wal ak ihsaan te ñu ko rafetal mu ñaan ne razaqana allahu yal nañu yàlla wërsëgal taala màgg na moom suñu borom xaqiqatahuma seen dëgg-dëgg ñoom ñaar mooy yal nañu yàlla wërsëgal dëgg-dëggi waaye yal nañu yàlla wërsëgal dëgg-dëggi euh, lixsaan kon bunt bi sëriñ bi loolu lañu ci jàngal mooy al islaam bu ñu ko waxee mooy lan lu ñu ci jublu waaye bu ñu waxee al itam lan lañu ci jublu te ku ne xam na ne sëriñ bi radiyallahu anhu doon na wax ne wi ci ñett la ko fonde mooy al imaanu bi tawxiidi gëm yàlla goo xam ne ci wéetal yàlla lay tege ak al islaam bil fiqhi ak l'islaam joo xam ne ci fiqh la koy teg mooy li nga xam ne moo ñu xamal attey sharia yi waaye al ixsaanu bit tasawufi ak ixsaan joo xam ne ci tasawuf rek la koy teg kon ñett yooyu mooy yi nga xam ne moom la sëriñ bi radiyallahu anhu wax ne moom la fondé aw yoonam mooy yoon murid yi nga xam ne euh, moom la ñu gëm te di ko topp euh, yaakaar sëriñ bi nga xam ne radiyallahu anhu moom moo ko sos kon bu ñu waxee euh, al islam luñ ci jublu sëriñ bi radiyallahu anhu ne ñu islaamukum seen lislaam zikrul ilahi mooy tuddu yàlla wasalaatu ak julli wasawmu ak aj makka walxajju ak aj kazaaka niki kazalika niki la azakaatu joxe azaka sëriñ bi radiyallahu anhu ne na de mooy tudd yàlla li ci jiitu ci seen lislaam mooy tudd yàlla maanaam nit pour mu doon ab jullit nekk muslim fawwu ñaari baati seere yi daf ko tudd mooy li ñuy tudde shahada tey ni seede ne amul benn buur bu dul yàlla waaye tamit seede ne seydina muhammad sallallahu alayhi wa euh, ndawul yàlla la kon loolu moom la jublu ci zikrul ilahi muy tudd suñu borom bi subhanahu wa taala euh, te bu ñu gisee ci alxuraan tudd yàlla dafa doon lu màgg loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala bàyyi na ko xel bu baax a baax ba ñu koy digol waaye wax ñu itam ne moo gën a màgg lépp loo gis tudd yàlla moom moo ko gën a màgg wala zikrullahi akbar euh, wallahu yaalamu ma tasnaun loolu alxuraan ju leer la kon nit la koy tax a doon ab ponk ba ca jiitu ci ponk yi nga xam ne mooy tax nit ki doon ab jullit mooy tudd yàlla tudd ñaari baatu seede yi nga xam ne moom mooy tax nit ki euh, tàbbi ci lislaam bu ca bàyyi ko muy jooxe julli mooy taxawal julli julli juróom yi nga xam ne suñu borom bi subhanahu wa taala daf ko farataal ci moom mu koy jooxe waaye di ko taxawal comme ñi nga xam ne noonu la ko suñu borom bi subhanahu wa taala digle euh, te it euh, muy lu am solo ndax suñu borom bi subhanahu wa taala lépp loo xam ne digal nañu ko rek ngir ñu def ko am maanaam maqsad jubluwaay boo xam ne moo tax mu digal ñu ko ndax bu ñu gisee julli suñu borom subhanahu wa lam ñu ci euh, euh, lim ñu ciy xertal li mu bëgg ci julli gi def ko ci ñun mooy ay ñaawteef yi nga xam ne mooy nekk ci ñun wala ay jikko yu ñaaw yoo xam ne moo nekk ci ñun julli googu raxas ko ba mu set moo tax mu ne inna salaata tanha anil fahshai wal munkar asawmu ñetteelu ponk ba ci ponk lislaam yi mooy koor koor ku ne xam na njariñ yu bari yi nga xam ne nekk na ci waaye la ci ëpp solo te suñu borom subhanahu wa tax mu digal ñu ko mooy taqwa gi nga xam ne moom lañ ci war a jële muy ak ragal yàlla ndax suñu borom subhanahu wa taala ba muy wax ci aaya ba ba muy daaneel aaya koor booba la mu wax ca mu juga mooy laallakum tattaxoon amaana bu ngeen ko defee da ngeen ci jële ak ragal wal xaj ñeenteel ba mooy aj aj maka doon lu am solo itam euh, euh, euh, moom lay wax ba tey ne fala rafasa wala fusuuxa wala jidaala fil xaj maanaam ñaaw téef ak lépp loo xam ne mooy lu ñaaw ak lu bon loolu lépp ki nga xam ne mooy aj suñu borom subhanahu wa taala daf ko ci musal kazalika niki noonu az zakatu mooy natt azaka natt azaka itam bokk ci ponk lislaam yi nga xam ne yu ama am solo la waaye suñu borom subhanahu wa taala digal ñu ko ngir lan ngir uh, suñu alal ji nga xam ne moom la ñuy dénk uh, mu mën a sell bañ mën koo jëfandikoo te ci am benn jafe kon loolu mooy ponk lislaam yi nga xam ne uh, moom la suñu borom subhanahu wa taala yoonal nga xam ne képp koo xam ne woo yaa ngi woote woon ab jullit nga ponk lislaam yooyu war nga sàmmonte ak moom waaye war nga koy doxal Euh, kem sa kàttan loolu la yonente bi sallallahu alayhi tënk ci ab xadis wax ne euh, buniyal islaamu ala xamsin l'islam day ñi ngi ko tabax ci juróomi ponk shahaadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqaami salaati wa itaa zakati wa sawmi ramadana wa xajjul bayt liman istataa ilayhi sabilan kon loolu mooy ponk lislaam yi nga xam ne képp ko xam ne yaa ngi woote ak jullit rek ponk yooyu war nga koo gëm waaye war nga koo bàyyi xel bu baax a baax a baax mu ne wal kullu képp kenn nag ci ñoom ponk yooyu euh, sartun ab sart la lil imaani ñeel ak ngëm yàlla waxtalafa nag wuute nan fii zeydihi ci dolliku ngëm yàlla wa naqsihi ak wàññikoom xawlu salaf waxi euh, mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo fi jiitu woon di borom xam-xam nee na ngëm yàlla day loolu sa euh, yooyu nga xam ne moom la tudd de benn bu ci ne ab charte la boo xam ne mooy tax ngëm yàlla ak nit ki wér maanaam pour ngëm yàlla ak ki wér faawu benn bu ne ci yooyu daf koo matale maanaam daf koo matale comme ni nga xam ne noonu la ko borom subhaanahu wa taala digle waaye it sëriñ bi radiyallahu anhu leeral ne ak ngëm yàlla nag ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yi nga xam ne ñooy mag ñu baax ñi fi woon tey gëstu ci xam-xam Euh, wuute nan bu baax a baax ci ndax ngëm yàlla dana yokku waaye ndax ngëm yàlla dana wàññiku euh, loolu nag ak wuute am na ci waaye wax nañ ne ngëm yàlla dana yokku waaye dana wàññeeku ndax ngëm yàlla euh, li koy yokku mooy sax ci ak jaamu yàlla waaye sax ci lu neex yàlla waaye sax ci lu la suñu borom subhanahu wa taala di gërëme waaye li koy wàññi mooy di sax ci ay mooy yàlla loolu lu mën a wàññi ak ngëm yàlla la kon yàlla nañu yàlla defal ñu sax ci ak ngëm waaye ñu sax ci ngëm guy dolliku te yàlla mosal ñu ci ngëm guy wàññiku <coughs> sëriñ bi radiyallahu anhu wax ne ihsaanukum seenuk rafetal nag an ta'budu mooy ngeen jaam zal minani boroom xéewal ya ka annakum ba mel ni yéen taraw na ko yéen a ngi koy gis bil a'yuni ci ay gët in lam takunu ndéem nekkuleen xarra aytu muuxu di ko gis ci ay gët fa huwa moom yaraakum mi ngi leen di gis faraaqi buuxu kon na ngeen ko foglu sëriñ bi radiyallahu anhu nee na seenu rafetal de bu ñu koy wax mooy ngeen di jaamu suñu borom subhanahu wa taala mi nga xam ne moom mooy boroomi xéewal te ku am xéewal moo ko defal ngeen di geen koy jaamu waaye jaamu gu ngeen koy jaamu nag bu ngeen koy jaamu na mel ni yéen mi ngi jàkkaarloo ak yéen ngeen koy gis ci seeni gët wala su fekkee ne jàpp ngeen ne sax yéen gisu leen ko ak seeni bët yéen na ngeen jàpp ne moom mi ngi leen di gis ak euh, mi ngi di gis moom suñu borom bi subhanahu wa taala fu ngeen man di nekk kon bu ngeen koy jaamu na ngeen ko fuglu na ngeen ko fuglu mooy na ngeen bàyyi xel ne mi ngi leen di mi ngi leen di surveiller waaye na ngeen bàyyi xel ne mi ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax kon loolu mooy al ihsaan kon mooy li ñuy wax ne al ihsaanu an taabudallaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak al ihsaan muy rafetal dëgg-dëgg ak sellal bu ñu ko waxee li ci jublu mooy ngay jaamu yàlla ba mel ni suñu borom bi subhaanahu wa taala euh, yaa ngi koy gis waaye boo demee ba jàpp ne moom sax gisu la euh, na Euh, yow sax giso ko na nga jàpp ne moom mu ngi lay gis kon na nga ko fuglu bu baax a baax te bàyyi ko xel ci ak sellal ak rafetal jaamu gi nga xam ne moom la war a sa diggante ak moom te nga war koo jox mu ne xamdan nag ak cant li rabbiya ñeel na sama boroom almuini mi aji dimbale albaari may aji baax ala tamaami jazbi jazbati sixaar ci matuk jazbatu sixaar mooy ci matuk téere bi nga xam ne moom laa tudde jazbatu sixaar nazman mu di aw yax wala ak way aw way woo xam ne yomiilu dana jengloo xalba kulli shariki xolub képp koy aji soobu yoonu suñu borom bi subhanahu wa taala ilal wusuli jamale ko ba ci egg ci suñu borom subhanahu wa taala lil ilahi ñeel suñu borom subhanahu wa taala almaliki mi borom nguur sëriñ bi radiyallahu mi ngi matal téere bi mu li muy matale téere bi mooy mi ngi sant suñu borom bi subhanahu wa taala mi nga xam ne mooy aji bind mbindeef yi waaye suñu borom bi subhanahu wa taala mi nga xam ne moom moo ko dimbali ba téere bi nga xam ne moom la doon euh, nazm mu matale ko ci anam ga gën a rafet waaye itam mu matale ko mu doon yax boo xam ne mën naa dimbali képp koo xam ne dafa jug jeng soobu yoonu suñu borom bi subhanahu wa taala ngir bëgg egg ci suñu borom bi subhanahu la boo bu takkoo ak li nga xam ne moom laa jàngale ci téere bi loolu mën na koo eggal ci suñu borom bi subhanahu wa taala waaye mën na koo eggale ci ngërëmal suñu borom bi subhanahu wa taala mu ne musalliyan nag may aji julli ala lazi ka nga xam ne ahabbu danaa ko sopp ahabbu moom laa gën a sopp ilayya moom moom laa gën a sopp ilayya jëm ci man min si ci sama bakkan wa ma uhib ak lépp loo xam ne danaa ko sopp mu ne maa ngi jeexal itam di julli ci ki nga xam ne moom laa gën a sopp sax ci sama bopp waaye lépp lu may sopp itam moom laa gën a sopp ci loola kooku mooy sayyidina mooy suñu sang muhammadin muhammad bughyatina mooy suñu jubluwaay wa alihi ak i ñoñam wa sahbihi ak i sahabaam xudwatina suñu royuwaay di sayyidina muhammad sallam kon sëriñ bi radiyallahu anhu nee maa ngi daani téere bi di sant di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di sëlmal ci moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moomu nga xam ne moom laa gën a sopp ci sama bopp waaye lépp loo xam ne maa ngi koy sopp itam yonente ba laa gën a sopp ci loole kooke mooy suñu sang bi nga xam ne mooy suñu jubluwaay di suñu royuwaay ci lépp kon maa ngi koy ñaanal te eh, di ko di ko di di julli ci moom ak sëlmal fu ma toll kon foofu la téere bi yem subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kon téere bi nga xam ne moom la sëriñ bi radiyallahu anhu tudde woon jazbatu sixaar eh, foofu la yem ñoo ngi tuubal ñëpp nag di jéggulu lu ci am ci ay njuumte ci biir ngeen jéggal ñu xam ne dañ doon ci nab na bi rek waaye du xam-xam bu ñu amee euh, waaye bëggoon a jariñante ak mbindeefi rek ci euh, li nga xam ne mooy mbindum sëriñ bi kem li nga xam ne moo ci tolloo ak suñu euh, ab xam-xam ñu ngi tuubal ñëpp nag di dogalaan ñëpp ngant di wax ne ku ko déglu jariñu ci dara rek ñoo ngi ñaan na ñaanal ñu ci suñu bo bi subhanahu wa taala mu defal ñu ci tawfiq wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu